Macky Sall moo moo moo euh, moo réussir euh, li nga xamante ne mooy fexe ba opposition bi féewaloo wala euh, opposition wala ànd bu sincère amul ci politique. non président Macky Sall deful dara xam nga haute trahison bu gën a mag ci histoire Sénégal. Mhm. moom la gis. ah mooy ban ak ban. ba gis ba wël baadoo dëgg-dëgg nga am sax bu la dëggal. Mhm. ne sax ko baadoo la boo ko saaxee ñii. ñii ñan sax sax nangu waa taxu Dakar. gis nga. Khalifa Sall dafa deewoon su politique. ñëpp xamoon na ko. dafa deewoon su politique. xam nga ñoom bu ñu yaakaar ne bu ñu tëjee Ousmane Sonko si la ñuy am doole pour bu ñu demee insopération moo jël réew mi. mais xamuñu si leen askanu Sénégal gën a jëppi. tey nañu woote bu ñu wootoon xale yi ñu gën yuuxoo leen. moo wootoon am dara si parce que Sénégal ñoo soxla ay traite gis nga ñoom seen député yu Abba Mbaye moo taxu Saint-Louis. Ousmane Sonko nekkoon candidat mais dafa gën campagne la ñoom ñëpp gën gagné. Mhm. Abambe moo taxaw mu ne Ousmane Sonko boo fu ñëw woon campagne ma du nekk député du nekk maire. Mhm. boo boo ñëw si élection maire ma nekk maire Saint-Louis. Mhm. ça veut dire que kon boo fu ñëw tamit boo fu ñëw woon du nekk tamit du ma honorable député. te mënoon naa du ñu ba dee honorable député. ah yeew yi xoolal ñu fa nekk ñëpp. ñu fa nekk yëpp seen seen député yi ak seen. maire Soham Wardini moo nekkoon euh, candidat wu moo noonu Khalifa Sall ci ci mairie bu Dakar. dama ne moo noonu dund ba dee. Uh-huh. dund dëgg monsieur le maire honorable député. wala maire de ville de Dakar. Mm. ginnaaw yàlla si bàkke Ousmane Sonko. lu amee tout. honorable député wala maire ville de Dakar wala yenn maire yi. waaw waaw mais Coly ndax li ñuy wax aussi que ni baal ma deux secondes rek ndax li ñuy wax aussi que ni Macky Sall c'est un fin politique maanaam ay stratégie daf ko am euh, ba opposition bu taxawee sax dina lijjanti ba mu jël ñenn ñu ñu transhumé wala mu fexe ba tas ko ndax du tamit dafa réussir loolu. no président Macky Sall deful dara. ah deful dara. waaw kenn dëgg ko mu wax ko jàpp kenn gi dama ne question de nit la question de gol ak gore waa deetu gol bi dafa yam ku goree di. ñoom waa yeewi ñoom ñu poignardé Ousmane Sonko bàyyi bu ba bàyyi bu mu dugg kaso. Mhm. poignardé ko kon ñun bàmmeel lënk bàmmeel lënk de seen gis nga nit bay ànd da nga ànd ak ay ay góor. Mhm. góor yu set wicc. Mhm. yàlla may maye jamono bu nekk ak li see feeñ. boo bëggee taxaw nga ne ay jamono socialiste nekkoon na fi nekkoon naa fi ministre pendant trente années. yàlla nga dem ba dund am plus de quatre vingt dix ans wala quatre vingt dix ans yu manqué da nga war di sukkuus dem toog yàlla. da nga jël retraite politique. koy joxe. dëgg te nga xam ni amul askan bu dëkk Sénégal fii. bu lay fal ku nga nekk président. benn xale boo xamante ne man man man man man nga ko man nga ko doom wala sa jabaat la tey bu demee ba génne la si bu nga duggoon ba Sénégal yi commencé laa ràññee pour man kooku da ko delloo. Hmm. lu mu la jox lu wàllu dafa am solo. Hmm. mais woo ko poignarder si si ginnaaw. Mm-hmm. Barthélémy Dias la preuve ba mu defee conférence de presse naan day xas Ousmane Sonko Ousmane Sonko tax nga nekk ginnaaw yàlla nga nekk député maire xeexal la Ousmane Sonko xeexal ba demoo kaso nekk boobu si ginnaaw. Mm-hmm. nga fa loolu yàlla naka si daal yàlla du ko mos a si àdduna a gis nga ñun Sénégal dana am ay référence te dana am njaboot yoo xam ne dañuy si ñun. Mm-hmm. nga seet genre de personne man xaw ma Sonko xamaa na ma Sonko mais am politique. alors bu ñu taxawee wax lu ñaaw si li de opposition bi nekk kaso man tam ma génn seetal ko ba mu set wicc parce que lu rafet lu ñu xam dama ne ñooñu même bu ñu génnee bii yeewee man bokkuma yeewee xaw ma parce que yeewee yàgg naa ne combat. fàttali nga ni yow fan nga bokk. je la de l'APR bokkuma yeewee. d'accord mais góor dangay ngay gore parce que ñun suñuy njaboot dañuy jël ay références ñun. Mhm. gis nga man ay taxaw Dakar jéem ma si xam kenn jéem ma si dugalante kenn. Mm-hmm. te jéem maa découvrir pour xam si kenn te ñaaw ma si xam si kenn parce que man samay ànd damay ànd ak ay nit yu correct yu diin mais duma ànd ak ay traite xam nga. te mm-hmm. askan Sénégal du ñu ànd ak ay traite kooku man maa la ko wax. bis bu ñu génnoon woote askan bi da leen woon ginnaaw xam nga boo yaakaaree amoon nga doole Dakar. Mm-hmm. nga yaakaar ne Ousmane Sonko moom moo génn loo tax askan Dakar bi dem wutul ko. nga bu nga ko tëyee kaso naa amaat doole boobu mais da nax sa bopp. Mhm. nga nax sa bopp gis nga ma wax la benn affaire. ah ndax yaakaaruñ ne ñu ci ëpp ci opposition opposant yi xam nga gars yi bu Ousmane Sonko nekkee euh, kaso dañ di yàqal ñii di passé xam nga xam nga xam nga xam nga li ñu comprendre si ah. soit Sénégal waaw gis nga xale yi am dix ans actuellement nii xamuñu Ousmane Sonko ñu am dix ans hmm. xamuñu Ousmane Sonko mhm. boo jëlee dix ans nga teg si quinze ans quinze ans si si si kaw dix ans mu joxe vingt cinq ans dafa fekk xale yooyu dañuy jàng ba am seen master deux ñoom kenn la ñuy xam parce que àdduna moo bind noonu. Mhm. beneen la ñuy xam parce que àdduna moom moo bind noonu. Mhm. xam nga léegi euh, ñii la ancien politiciens yi dañu dañoo xam loolu man Khalifa Sall dañoo xam loolu. dañoo xam mhm. dañoo xam ni Ousmane Sonko dafa maase ak jamonoom. ay jeunes yu am ay vingt cinq ans am seen i master deux am seen i licence ay béykat ak ñeneen ak ñeneen ñoo ànd ak moom. Mhm. gis nga xam nga tey boo xoolee tey lien bu am entre Ousmane Sonko ak jeunesse bi nga xam ne c'est un lien particulier tout le monde sait c'est l'idéal. Mhm. moo am tey entre Ousmane Sonko ak béykat bi. Mhm. moo am tey entre Ousmane Sonko ak marchand ambulant bi c'est des faits réels loolu ku ko waxul doon it. parce loolu moo am te loolu lañu gis xam nga. man bokk feneen taxumaa wax sama dëgg. du may wax dëgg xam nga mais Sénégal dañu war a moytu yenn yi mm-hmm. parce que nit ki mënu laa jàppale ba nga am ay ndomba tànk nga nekk député maire amul lu ko gën a rëy mm-hmm. ba nga am tuul tey sa àdduna bi tey ni ko yéenoo ko lu kaso ak bàmmeel te loolu moo am mm-hmm. parce que ñëpp a takku Ousmane Sonko ngay gendre yeewi à part Mimina Bousso laa si gis

li ma gën a compte mais les a xam ne dañu nekk si mbedd yi jël ay côté ma di yàq ay ask ay alal jàmbur loolu dama ko compte loolu dama sa la mais nañ dem sa plateau télé def ay conférence de presse parce que Ousmane Sonko kon ko contexte moo si nekk contexte politique réponse politique nekk faj nañ sa plateau dem si def ay conférence xeex la ko mais ana les jeunes yi nekkoon kii Pastef booy booy nekkoon Pastef xëy ñu booy sant ay lii ak yeneen booy la moo tax mënuñu bu baax bu lañ jabootee bu tax Sénégal yi na bu nekkee su guut la nga dem la ko si média ba ko bu man bu nekkoon sama leader damay def ay euh, may fekk may def ay ngan yu conférence de presse mhm. di ko xeeral si média yi euh, kilifa bu baax loolu mais mais loolu ngay delloo mais cëram mhm. mais les les jeunes yi nekkoon Pastef ñu ngi woon dégg yëpp si plateau télé yi mais gisutuma kenn mhm. mais dama wooy gën dem si plateau télé yi dem xeexle seen leader parce que kilifa bu baax leen am doom ju baax day xëy na bàyyam. Mhm. loolu loolu la xam. Mhm. mais du nekk su guuta ñoom ñëpp gisoo si kenn. Mhm. man bu nekkoon sama leader la heure ay conférence de presse. Sénégal Sénégal ma Samba Sénégal ma Demba. waaye ñooñu tamit Sénégal Sénégalais Sénégalais yëpp si bokk yam. jàpp parce que de euh, bari na trop jàpp de mille détenus xam nga boo benn affaire tey. nga xam ko Pastef lu ndaw la. Ousmane Sonko nee naa la askanu Sénégal. ñoom ñoo ko gis seen bopp bëgg ak seen bopp. parce que askan bi Sénégal nu mu bindoo ñoom ñoo soxla ku mel ni Ousmane Sonko soxlatuñu ay politiciens yoo xamante ne dañ ne leen dénkoon ay keesu Dakar def defuñu ko def seen poste ba ba yoon teg leen loxo. Mm. soxlatuñu politicien boo xamante ne fii lañ def ne ay euh, bien de fonds public. Mm-hmm. def na fi ay milliards yoo xamante ne tey ñu ngi Dubaï xam nga Qatar. yaa ngi ah, doon di sax wala ay producteurs yoo ay fayu sànq sànq sànq de kees. koy waxal xam nga. Karim Idrissa wala kan xam nga Sénégal ñoo ay producteurs yoo xamante ne dañu taxaw mais xam nga. mais mais Séné ñoom man xam nga man wax ma li senegal yow wax man moom laa jotal. a man damay dama ne askanu senegal ñoom ñoo soxla les gens de personnes comme Ousmane Sonko. Mhm. jub gars yi sérieux ñu dëggu. Mhm. askan bi ñoo soxla genre yi mel noonu man man damay dem si ay gox gox goxaat. te mhm. ñuy wax dama koy dégg sama nopp daxa jàlloo mais fan parce que sama taxawaay ba mel la la la laa taxaw. Mm. laa taxaw xam nga dama ne bi yàlla tuddee mi Ousmane Sonko mi keneen ak keneen ku jub ku sérieux ku ay loxoom set ku xam ne kenn mësu koo jënd si ay détournement fonds publics. Mhm. askan bi porte sa combat. ñu ko jub ku sérieux laa wax koo xamante ne. Mm-hmm. kenn du ko jënd day day lax soo nguur maam sangu dew bukki mel na leen mm-hmm. xam nga mm-hmm. nit ko sérieux ku dëggu nga benn opposant dëggu moo am Sénégal na ko tuddee benn opposant bu am tous les autres gens day oppo opposant da ngay mbubboo ñoom ñëpp si am <laughs> que moo nekk opposition ngay lax soog su guddi yi lax soog waa nguur gi lu nekk bëccëg nga gën a am opposition opposition laa bokk loolu mën da nekk Sénégal ñëpp xamante xam nañu xam nañu li xew benn opposant bu dëgg moo fi am. Mm. muy Ousmane Sonko. man yow yow yow affaire nga nekk ba ba tey ci suba bi wala. xam man parce damay ragal yow boo paree émission yow moom li dal li dal li dal li dal taxaw Dakar. daal non ma attends yow mm. man su ma dem APR ak sama mouvement de ressources Casamance damay def bëccëg ndar kam conférence de dem jàppale ko si personnalité ak dignement ak jàppee. waaw mais jamono jii. mais ci ci ci ci li ngay yëkkati. on n'a pas l'impression que. ba tey yaa ngi yaa ngi biir affaire mais mais mais mais ma xool benn affaire. ndax ki taxawaay ba mu faa amoon ba tey yaa ngi ko tey am. mais nabu xam nga man dafa am loo xam ne dama sa yàlla dama ko mooñaat mi dëgg ñu si dëgg. Mhm. man duma jëw tux duma naan. Mhm. kenn du seen si yenn affaire yi du fekkaan sax ay jotaay mbedd. Mhm. dëggu bu nekk si man nga xamante dafa yàgg si man. dëgg boobu ba keroog may sangoo suuf denc mukk si man. dëgg boobu dama koy deewaale dama koy daal te dara mënu ma bañ sama loxo. mu jóge si man boo génnee fajal yow di nga jot ginnaaw ginnaaw kenn. Mm-hmm. ginnaaw kenn dañ la génnee de. yow dañ lay génne waaw attends mm-hmm. mais kon yow di nga génne affaire de. non attends attends. te yow sax lu tax génne woon sa bopp ba tey loolu itam beneen laaj. ginnaaw kenn nenu ma. nan ma na na bu ma wax ma jël amul problème. Ah, ñu ma baax buñ bu ma bu ma waxee après bu ma jël bu ma waxee ma jël. kon ñu ma jël ba pare buñ ko dàqul ba 2024 ndax yow da ngay soutenir ba tey. dama ne. seen candidat dama ne. la paire na ma bu ma waxee ma jël. mais yow bokk nga ah yow da xaar ku la mën militant militant bu gën a ndaw sax na ma ma jël. mais yow kon sa am génn ba ah, pare. parce que militant bu gën a ndaw mais jàpp dafa am responsabilité APR. ma mhm. ma jël léegi yow lu tax génn goo APR Benno Bokk Yaakaar boobu ba tey. dama ne yaa ngi nga injustice yi nga xam ne moom dama ne xam nga man nitu dëgg laa dëgg dafa ma yàgg. waaw dama bu ma jël. kon baax na kon yaw ajaratu doo ma ko laajal ndax bu jotoon ci paar paaram ci gâteau bi comme ñu bëri nee nañu Mimi Touré bu ñu ko defoon président de l'Assemblée nationale euh, taxawaay bi mu am ci opposition bi du ko am waaye moom it ndax bu ñu ko joxoon paaram ci gâteau bi la vraie nga nekkee APR boobu ba tey est que gis nga ci sa bopp déjà boo ci gisul sa bopp moo koy justifier affaire gis nga bul esquiver suñu question gis nga gis nga moo xam benn affaire. boo ko esquiver il est fort en ça non non xam xam xam eggale xam eggale <laughs> man defoon enquête moralité trois fois sama mu filté uh-huh, ma dégg uh-huh. ne enquête moralité trois fois mu gis nga nee ku bëgg poste su uh-huh. nguur Ousmane Sonko nga def promotion parce que saaga Ousmane Sonko diplôme la ku am poste su nguur est man sama dignité ak sama personnalité ak sama ngor mayu ma ko. mayu ma may saaga Ousmane Sonko pour am poste su nguur. Eh, mais est-ce que tu es vraiment reconnu au sein de l'APR c'est ça la vraie question. Ah. est-ce que au sein de l'APR ñun reconnaître nañ monsieur Coly ak son mouvement je suis le président mouvement des ressources Casamance de Thiès ma xam ne affaire politique tey. oui. gis nga en Thiès. Mhm. élection municipale yi. waaw. Benno dafa tasoon Thiès. ku nekk des sa yoon bopp. Mhm. ku nekk des sa yoon bopp. Mhm. yeewi duman duman yu métti te pourtant yeewi am fa doole. Mhm. musu musu faa def mobilisation bu am doole noonu musu am musu yeewi musu faa def mobilisation bu am doole. yeewi duman duman yu métti. ñëwaat élection législative Benno booloo encore boo seen fos ñëpp booloo en yeewi du ma du ma gën a métti encore la moo tax. Mhm. la moo tax am na lu am na tax. lan moo tax pour ñu ko waxee. ñu ah, xam nga damay ne gis nga les ressources en Casamance ñoo ëpp Thiès wax naa ne ko yàgg naa ko wax dëgg wax ko réunion Benno Bokk Yaakaar mhm. ñu weddu ko mais man dinaa ko Casamance dañu voté yeewi. ma maa ko def. yow génn nga dëgg nga ko te non bi question génn ak yow la. génn nga. non question génn ak yow la. non non non non non non xaaral xaaral xaaral yow wala ko xaaral nag tey la moom wax dëgg yàlla kóoli nag da ngay xaar. non non attends kóoli nag kóoli nag da ngay xaar. depuis tout à l'heure yaa ngi expliqué suñuy question. waaw dëgg la kay yéen a Ndaw déglu. Coly waxoon ndax déglu Coly ressortissant Casamance yi nga xamante ne di la Casamance yi nga xam ne ñoo nekk Thiès. ñu dem voté Yewwi ak Coly ah, yow génn nga waay buñ la dàq nañ la ci daan ñoom ñoo ëpp doole ñoo ëpp Thiès la preuve gis nga ba nga ayta ba léegi ñaata association noo nekk fii ba Dakar fi nekk dama woo. na la. dama meen nga politiciens yii traditionnel bi leen jum ànd ak ñoom jàppale fi ngeen ngeen jàpp ngeen gëm ngeen gëm kan la gëm ak kan la yàpp. Ousmane Sonko ñu jàpp moo gëm ñoom. yow bàyyi ko ngeen gëm ko. moom bàyyi nga ko nabu nabu moo ko benn affaire. waaw nabu moo ko benn affaire. lenn ko waaw affaire buñ la ko ko bëgg a waaw léegi bu ñu bàyyee bis bi ñu bàyyee injustice bi ñuy teg euh, le principal l'opposant mhm. su boobaa mu continuer sama combat politique. Mhm. parce que man dama contre injustice. Mhm. tant que injustice mi ngi am loolu ku ma ñëpp ku ma xamee xam xam xamee nga ma tudd man Sidi Makhtar. tant que injustice mi ngi am. tant que mi ngi am ma jàpp ma jàpp. balaa balaa may jox oustaz parce que il faut oustaz ñëw ñu avancer ci dernier point bi nga xamante ne moom la ñuy waxtaanee mais comme mami li mu la wax léegi nii comme ji bokkatook ñoom gis-gis. ci dëgg bi ngay wax yow nga nit fii toujours constant. yow dëgg rek ngay wax ak fu la mën di fekk. waaye nit booy ànd ak ñoom ba gisatoo fa dëgg. te bokkatoog ñoom xalaat bay dem ba sa mouvement. wala ñi topp sa ginnaaw nga naa leen nañ dem voteel ñeneen ñoo xam ne faruñoo ak yow. waa doo baax je li ma wax dafa leen nañ mm-hmm. dama ne tant que injustice mi ngi am mm-hmm. ma jàpp fu ma jàpp dëgg këcc ginnaaw kenn nenu ma mm-hmm. ginnaaw kenn nenu ma gis nga les gens là yoon na ay milliards dugg mbooloo mën na ko am wala bu ñu wo mbooloo bi ñuy mbubboo dañuy woote meeting fay ay nit ñëw fesal du wane ne am nañ mbooloo loolu du mbooloo loolu da fay ay nit ñi xaar moo leen tax ñëw kon kon Benno Bokk Yaakaar affaire dañuy dañuy dañuy mobiliser ci xaalis ak ay t-shirt woo ay. dëkk bi dëgg. tegal dëgg. baax na yow ay yu bëri nga ne boo bindee message bu la wax ni def ko. te ci groupe yooyu. groupe yooyu mi ngi nii groupe de ko. boo mais bokk nga ci groupe bu APR yi. loolu non attends wala Benno Bokk Yaakaar mais mais je voulais bien savoir est-ce waaw <laughs> su may guub WhatsApp kese. bëri na bëri boo xamante ne benn guub WhatsApp mënatu mënatuma ko supporter. benn guub WhatsApp. mënatuma ko supporter. gis nga Nabou. man nit ku dëggu laa. oui moom kay constance bi moom. moom parce que c'était le même discours bi nga njëkkee ñëw te dama contre injustice. Mm. nee naa la bu nu bàyyee injustice bi nuy xeex li dal opposition bi. Mm-hmm. su boobaa am politique ma xeexu ba naaw. mais tant que dañuy def dañuy xeex injustice te dañuy am ay njaboot Sénégal benn bopp la kenn mun koo xal ñaar. Sénégal ñëpp ay mbokk noonu. Sénégal ñëpp ay mbokk noonu. Ousmane Sonko papa may Casasin. yaayam bool la. kon Sénégal ñëpp benn mbokk noonu. kenn mënu ko xal ñaar xam nga kenn mënu ko xal ñaar man nee naa la kii Nabou. milliard origine ya ak Fistine laa yemale. wallaay wallaay tu l'as toujours montré xame na ma ko. même en peu dañ naan loo ko jox du ko faanoon lépp lay joxaat ko. lépp lay jël partagé ko. kon dama gëm partagé. waaw Sidi balaa oustaz Diack di ñëw. Hmm, oustaz de fi mu toll nii bu waxul di di problème dina am. dama bëgg ay kii dama bëgg ay cas. Hmm. ma ñoom fay fay leen ba eh, bi tey fay nga micro yi. waaw fayal fayal. wuyu ma Sidi Maxtaar. Hmm. APR Benno Bokk Yaakaar muy woote manifestation nii di ay dajale nii ne xalaate xaalis wala. ñi ngi woon ñi bu mag jaw fay ci tournée euh, économique boobu jaw fay ah jaw fay na ko fay pour sutura bay fa nit ku franc nit ku dëgg naa xam aussi dama taal waaw mhm. mhm. mhm. naa la tey ñëpp nangu nañu ñëpp nangu nañu c'est la première fois ci histoire Sénégal benn leader opposition bu wootee ay nit ànd xaar dina ko adiya. suñ tubaab la ba tubaab bi du bañ loxo suñuy maam. naan nañuy fay impôt. Mhm. ñetti dërëm. Mhm. ba nga xamante ne en l'époque boo ko joxewul sax ñetti dërëm yi da lay du du muy métti. Mhm. am ñoo xamante ne yoo xam ne ñetti dërëm dañuy jël fukki dërëm jamono boobu ak say dugub di ko yóbbu sëñ Bamba. adiya boo si rek ay jooy. dëgg la <laughs> tubaab bi naan jooy bi lan la kii dafa amee wala la fekk na jooy bi mais li nga ko jot nga ko xeeb. Mhm. Mhm. kon bu ñu gisee ay Sénégalais jël seen i ñàkk. di ko jox benn politicien di ko jox benn politicien mhm. mais loolu da nga koo jàngatal ban amul may daw diggante politicien bu askan Sénégal boobu. très bonne question. waa Sénégal ñoom ñoo doyoo si place politiciens yi fi nekkoon. chaque jour ñu jëlee ay détournement de fonds bu dégg ba ca suba moomeel boo xam ne moom na ko moomeel askanu Sénégal la. Mhm. kon bu nu gisee benn waay joo xamante moom nee na fu ma doon liggéey impôt domaine. Mhm. yoon poste bu bu bu garaaw muy audit des entreprises. Mhm. nga xam naa am nekk. te mosum faa jël dërëm. dañ koy a jàng. nga ne kii mosu faa jël dërëm. bu taxee ne sénégal yi maa ngi nii léegi te avant Ousmane Sonko man xam la ma jaaxal avant Ousmane Sonko du nekk politicien. mais mais ñun politiciens yi ñu ñëwoon man dama doon dégg sa turam ñun politiciens ñu koy tàgg naan benn ku jiite syndicat impôt e domaine bi ngi tudd Sonko mais waa ji jub la. ndeysaan waa ji jub la. Hmm. waa ji dëgg la. wax sa mbaax dara nangu kenn ku mais mais man avant imam avant Ousmane Sonko di nekk euh, politicien imam. daa hmm. doon dégg loolu. Hmm. mais kooku tey bu nekkee politicien mu am benn popularité ñu bëgg a soppi turam def ko ñu populariser popul kii politiciens yi naan léegi ñëpp a yem. kooku ne maa ngeen ba léegi yamuñu. déet bu ñëpp yemoon nag am ñu gëdd seen cër. très bien. mais kooku ne maa ngi maa ngeen yamuñu xam nga. popularité am di gën a yokk saa yi saa yi koy bu gën a yokk. saa yi koy bu am di gën a a taxaw taxawaay. war ngaa mën a taxaw def. stock waaw ku xamul li ngay ku xamul li ngay yeewoo suba. Mm-hmm. war ngaa tey si mbir yàlla suñu borom. dëgg la de. bi yàlla tuddee Ousmane Sonko may nekk président de la République bu Sénégal 2024. Mhm. ak fu mu ko mën a jaale mun nga tas Pastef yàlla jaale ko feneen am benn parti bu ko investir leneen ak leneen Pastef dafa bëri ay parti yu fa nekk. Mhm. le professeur Madiaye Mbodj amul parti parti parti politique. Mhm. nekkul Pastef. amu fa doole. nekk nit ku sérieux ma xam ko bu baax. parti bu ko neexee investir Pastef kii Ousmane Sonko. waaw te parti bu ko investir Ousmane Sonko dañuy pouvoir bi. xam nga gis nga boo tafee Pastef yàlla bu nammee nit mais kii moo jiite Sénégal 2024 kon na nga xale yi doo xam Sonko président 2024 laa dégg xale yi di ko wax ah. mhm. xam nga partout foofu na moom ngay moom ngay gis mhm. xam nga bu koy bu ko yàlla tuddee namm ko laa kulli ànd kenn mënu daa parce que ñun doon gëm yàlla waaw mhm. ah, parce que yàlla noppi na bi yàgg yàlla noppi na bi yàgg ñun dañuy safoo rek mais yàlla noppi na bi yàgg je vais te laisser souffler un tout petit peu parce que xam naa ni il est fort pour esquiver les questions il est très fort dëgg la de parce que li ma ko laaj ba tey tontoo gu ma. il est très man du bàyyi man à la. non non mais loolu faaw mu ñëwaat waaye damay bàyyi oustaz wax.